fii de sama garage la xewe waaw du ma seede loo xam ne nii xaw ma ko li may seede ni yàlla tax ma koy xam ma koy wax ndax dama woor waaw du ma fen ndax alal lii du xew na du tax tam ma wax ci lu dul lool. bidon essance la boo xam ne dañ koy jëlee ci euh, essence benn réservoir bu ñu wàcce teg ko à côté muy 20 litres biñ ko tegee noonu di xaar pour monter pompe à man ci laa toog te garab ga fee damaa jékki-jékki gis mu tàkk mënu laa wax ne la. alxuraan al karim laa la giñ ne la lii ko taal ba tey ji mënu ko xam waaw li takk nag dafa jege woon wagon bi ay presque un mètre et quelque la un mètre et xam nga loolu kii bi da koy da koy day dem vapeur bi day dem wapeur boobu nag tàngaay boobu moo taal euh, wagon bi xoolal yeneen ñaari oto yi Passat be ak ak Mercedes bi sorente na mat na deux mètres mais safara day ñëw da koy fekk si mais mënu ma laa wax ba tey ci li taal affaire bi xaw ma ko. lan bi. nag moom man euh, Cheikh ma Male moom moo ko occupé woon moo yoroon caabi ji xam naa ne ñàkkul ne ay ponu la ci defoon waaw ay ponu mais Passat bee de sama benn frère ko moom moom dakaar la ne mooy bu ñaar la ñett la lakk. man ñaari yi mooy nekk sama responsabilité mooy Passat bu ñuul bi Passat bi euh, Volkswagen bi Passat. ak euh, Mercedes élégance bu bleu bi ñaari yooyu moom sama responsabilité la da mais ñaar yooyu ñoom euh, sori woon na mais tàkk-tàkk moom day day da koy fekk si boo ko lakk mais mënu ma wax li ko taal wax dëgg yàlla gisuma ko ma sahid naa ilaa bi ma alim doo seede loo xamul essence daal mu la bidon essence la waaw bidon essence la bu nekkoon foofu moo newoon moo jege sori nekkul nekk soriwul oto bi sori na oto bi à peu près mat na un euh, demi espace bi presque deux mètres daal mat na ko ak wagon bi sore na ak wagon bi moom deux mètres. deux mètres ñun moom boo ko doon estimé tey est-ce que mën li nga xam ne moo fi est-ce waaw waaw cher na de wax dëgg yàlla ndax Volkswagen boobu rek ça coûte ay deux millions et quelque benn oto bi waaw beneen Mercedes bi en même temps tam waaw wax dëgg chair na waaw kooku mën na dikk ay un million cinq cent. beneen bi moom bu ndaw bi mooy 4 x bi nekkoon ci ginnaaw moom carcasse la moom wax dëgg ga waaw. peut-être euh, mën na jar ay huit cent mille ak yooyu mais wagon moom wax dëgg yàlla xaw ma eh, mënu ma estimer lan lay jar xaw ma ko mënu ma ko. woo naa leen dix huit mais doo de du dem. fii laa taalee oto ne fii laa taalee oto dem Mbàkke <laughs> yaakaar ne Mbàkke am nañu euh, sapeur mais euh, dara ba tey amul sapeur. waaw ndax dafa mel ni fi ngeen wooyee sapeur ak fi ñu ñëwee xaw na jege wala. waaw wax dëgg yàlla ñii bu fekkee ne xaw ma fu ñu jógee ah. fu ñu fu ñu jógee bu fekkee ne ah Mbàkke de amul sapeur dama xamul fu ñu jógee bu fekkee Jurbel lañ jógee de wax dëgg yàlla gaaw na waaw nit ki ba ngay seede bu fekkee Jurbel lañ jógee ay jàmbaar lañ waaw ndax yàggul wax dëgg yàlla digg distance